التواصي بالحق والتواصي بالصبر دين كنت دق دين كنت مو لول تخنى وقتان بي دانو كو ليرال بو باخ ليرال سيرين بي نيو دي خيت لي جامونو نام تي جاري يون مو جار نام تي جاري فمو مجي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 mag ñi ñi ci nekkoon suyuqu tërbiya ak suyuqu tarqiya dañ daan wax ne bul xool lu ëpp juróomi mètre ci sa kanam boo gàttalee sa seet taqoon njàpp boo taqoon njàpp néewalal say wax yoonu ak ngoog yoonu tërbiya ngoog كان بيت جميع القوم أربعة بها يؤسس بنيان الولايات صمت وجوع طويل بعده سهر وعزلة عن شيوخ بالإشارات جم جي بي خولم سيتي باغا ار نكو ار اي ييغو يب بتت نبق يب ييب مونغي ملنا لي ني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 foo jëm loola tiital la boo xalaatee li ci nekk daan ko waxtaanee ñuy wax bi suñu borom di misaal ñi gëm dëgg-dëgg innamal mu'minuuna allazina ida dukira allahu wajilat qulubuhum wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zaadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluuna allazina yuqimuuna salaata wa mimma razaqnahum yunfiquuna ulaika hum mu'minuuna haqqan lahum darajaatun minal maghfiratun wa rizqun karim daan ko waxtaanee insha allah léegi doomu aadama am ay jaarwaay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 dundu gi nag dundu aduna gi ro dafa woyof manam dafa new doole nima ko waxon bimu duggé ci yaram yaram ëpp ko doole fuf nak te bëgg lu koy lor rek lu bon fofu jihad nga fi allazina jahadu fina dal nay dugg si fofu waye lo gis rek am njàng la sin mim miim ngay tambalé da ngay mujjé di tari alquran jëpp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 dem ba set texe yomul xiyam mu dekki bokk ca way texe ñu lu koy waral